mi ngi noonu DG ñu ngi lay masawu bu baax xam naa ne il est un peu ñu ñu ñu voilà ñu ñu peut-être ñu xaar. Euh, dafa nekk ci oui ñu daal koy jël fàlloo ngi noonu. bisaan kaay bisaan kaay bisaan. c'est bon voilà mbok yi ba leen di fatali ba tey ngi ci euh, buntu fajr yi kenn ci suñu natango yi nak mi ngi won ci kaw di mbisaan euh, ba mu yegge mbir mi en tant que citoyen lata li le fi indi ba nga yegge mbir mi ni mel lan nga njëkk xalat bon euh, lu ko d'abord. Mhm. parce que aussi Walfadjri Presu la bi nga xamne ni keur gu mag la. Mhm. ci presse senegal ci taarixu réew mi parce que kër la bi nga xam ne nii lu muy jëmmal ci réew mi mooy euh, liberté d'expression liberté de la presse moo tax euh, lu mel ni bu amee euh, suñu xol ñun ñëpp day tooy parce que tey métier bi ñun ñëpp daanaka buñ ci duggee aussi wal Walfadjri am na ci wàll te aussi lu mel ni bu amee aussi suñu xel day dem ci ki nga xam ne ni aussi amoon na taxawaay bu baax a baax ci réew mi ci wàll wu ne parce que lii tey bala ma ko jëmmal ci réew mi mhm. bëri woon na xat-xat bëri woon na ay faxasal mhm. bëri woon na ay obstacle mais teewul mu jëmmal ko ci dëkk dëkk bi muy symboliser comme ni ma ko waxee sànq la liberté d'expression la liberté de la presse kon xel day dem ci moom moo waral la teewaay bi moo waral suñu teewaay ñun ñëpp mhm. mu yéen muy man muy ñeneen donc euh, ngir apporter notre soutien à Walfadjri naqarlu ko mais aussi aussi euh, sànq le ministre de la communication ñëw na fi dox tànku nemeku donc euh, tenir fi ben discours bu am solo mais aussi Cheikh Niass aussi ñu déglu ko euh, mu ne dal studio la bi nga xamné ni euh, dañ koy doga aménager donc di ngeen imaginer aisément que ne dugal nañ ci koppar gu bëree bëri donc té copper bobu mën nañ ne tamit tak tak bi yóbbaale nako mais lu ñuy mëna saluer rek moy né amul ben nit bi nga xam ne ni loru na ci amul benn nit bi nga xam ne ni am na ci gaañu gaañu démb sànq rek jël nañu la commandant des sapeurs pompiers la même chose la ñu wax mën nañu amul benn nit bi nga xam ne ni gaañu na ci donc les dégâts sont juste matériels ah, te matériel moom lu ñuy mën a remplacer la donc euh, ñu sante ko yàlla xam ne nattu la donc euh, ñuy ñaanal kër gi aussi tamit euh, mu mu relever waat comme nu mu ko nu mu ko mën di ko defee saa su merci merci beaucoup. merci beaucoup kilifa gi. Ni ngi lay nuyu bu baax. kay kay kay. Charles kay. ah Barka. Charles viens Charles viens s'il te plaît Charles kay. Charles kay deux minutes rek deux waaw Charles kay deux minutes. Charles kay deux minutes. Charles kay deux minutes. Charles kay deux minutes. mais barka voilà. voilà mi ngi noonu ñu ngi xaarandi ba léegi mbokk yi euh, fii ci euh, Walfadjri euh, ñaa ngi noonu ñu ngi wàcc ndànk ndànk fii nga xam ne moom mooy ci Walfadjri dañuy xaarandi ki nga xam ne moom mooy le commandant mu daal di ñëw. ci li nga xam ne moom mooy euh, defal ñu bilan euh, provisoire ci li nga xam ne moom moo jot a ak itam wax ñu exactement euh, mbir mi ni mel lan moo koy faral lan moo tax mi faral di am voilà ñu ngi di ba léegi fii nga xam ne moo ci buntu Walf bi fàttaliwaat itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ci ay kilifa bari nañ lool gis nañu ki nga xam ne moom mooy Ahmed Papa Ahmed Khalifa Niass ñëw na fi nga xam ne moom mooy ci Walfadjri gis nañu itam ki nga xam ne ministre la bu ñu dénk wàllu communication di Alioune Sall mu yëgee mbir mi comme ni ñu ko waxee mu bàyyi ay yitteem daal di ñëw fi nga xam ne moom mooy ci Walfadjri ngir itam s'enquérir ak massawu ànd ak ñoom ci lii nga xam ne moom moo euh, xew gis nañu Mouhamadou Lamine Dante moom itam daal dina ñëw gis nañu soppe yi am di jàmm yi daal di ñëw fi nga xam ne moom moo ci euh, Walfadjri ngir ànd ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te ñu amee li nga xam ne moom mooy euh, te ñu am sax plutôt lakk-lakk ci euh, euh, régie bi nga xam ne ñenn ci suñu naataango yi nga xam ne ñoo yegg ci biir wax nañu ko régie bu bees boo xam ne dañu ko aménagé def ci koppar bu takkoo takku tey mu lakk ba jeex tàkk mu nekk nag lu metti ndax nag suba la fête du travail ñu waroon ko màggal waaye dafay xaw a am nu mu demee de toutes les façons ñi ngi massawu suñu naataango yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Walfadjri di ànd ak ñoom ci naqar bi euh, dégg nañ kàddu yi nga xam ne itam euh, Mass Mboup yëkkati na ko euh, mu nekk kàddu yi responsable kàddu yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci Walfadjri ku ci mel ni Betty Mboup ajaratu yëkkati na ko ndax moom ba mu yëgee mbir mi dafa mënul dawal maanaam am na mbir noo koy yëgee doo mën a jël sa oto di daw di dawal plutôt da ngay taxi comme mon ko a Kumba Je mi nga l'émission doon def émission moom itam de nañ yi euh, dina koy euh, rek itam wax exactement mbir mi ni mu démé ak am fan la ko fekk euh, qui vient juste d'arriver Euh, ba mu yëgee mbir mi bàyyi seen mesere ñoom ñëpp ak euh, Papa Assane Seck euh, moom itam kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati ba mu yëgee mbir mi nga xam ne moom moo am ndax moom fii la ko fekk moom mi nga xam ne moom mooy Baye Assane Seck ak ñeneen ci ñi nga xam ne ay technicien lañu wala sax ñu nekk journaliste animateur présentateur lu mu ci mën di doon ñëw ngir xool si li nga xam ne moom moo xew ni ngeen ko gisee nii nag amul benn lumière bu tàkk.

te xamuñu exactement ndax boo xoolee Walfadjri bi peut-être ñu am occasion mës a yëg ci biir gis nañu couloir yi ni mu mel dafa xat te dafa bëri euh, ay fil courant bi ni mu demee noonu bu amee lakk-lakk pour nga am accès fenn fi dafay xaw doon problème dégg nañ maas kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko moom mooy euh, sappeur dafay mujj di toj li nga xam ne moom mooy euh, yenn ci ay mur ngir rek mën a am accès

c'est-à-dire li ñuy ŋàññ ñi nga xam ne ñoom ñooy les services du du du sapeur rek ak yeneen li leen di ŋàññ dafa bari lool. te des fois nga gis ku mel ni Papa Mbaye wala nga gis ku mel ni Fallou day woo sapeur te du leen doyee dara comprendre nga moo tax des fois euh, euh, da ngay continuer di inciter di woo sapeur ba sonn euh, pour mu ñëw problème la day day day day dafay indi nga woo. voilà maître ñu ngi lay nuyu. <laughs>

un incendie s'était déclaré. Et euh, voilà, nous sommes venus en fait compatir et, euh, avec ce groupe de, presse Wolfadji euh, qui est distingué parmi les, les, les groupes de presse au Sénégal par son engagement. Et ça ne nous étonne pas.